firi alxuraan moo ko fi indi. 1902. officiellement la Sëriñ Xaj Maalik soo ko toog Tiwaawan mais la njëkk 1902 Alaaji Maalik doon na ñëw Tiwaawan di delluwaat. góor gi maam ma Amar da daan jaay ay téere dafa ñëw fekk ñu bëgg tafsir ñoom góor gi Jibril Jibril Gaye. muy leen ay bëgg a daje woon ak sama góor gi Sëriñ Xaj Maalik boobu Alaaji Maalik ma nga tëggee. ca góor góor gu ñu tuddee góor gi Ibra Seck. ñu fekk Sëriñ Xaj Maalik mu ñëw. booba euh, maam yi góor gi biraan Cissé maam yi Moustapha Cissé bu piir moo daan firi alxuraan mm. ba bis muy dem nag mu ni Seex Sadi Xaaj maa grand place am waaye alaaj Maalik ni muy firee Faatixa kenn la te danaa leen ci ñamal tuuti ihdina siraatal mustaqim ku ko tiyaawoon jàngalul pour nga firi ko day jafe mooy teg ñu ci yoon wu jub bi mi ngoon ci yoon wu jub pourquoi yonent bi di julli naan yàlla teg ma ci yoon wu jub ihdina siraatal mustaqim mm. yonent bi dafa nekkuloon ci yoon wu jub mm. kon lan lay maam borom Touba mbaax gi mu nekk woon bu ne yàlla teg ma ci yoon mu jub pour yàlla jubal ko la maam Ablaye Niass ak mbaaxam bu ne yàlla teg ma ci yoon mu jub pour yàlla jubal ko la lan lay firi dimbiluñ ci bokk bi mu ñëwee Tiwaawan di firi alxuraan <clears throat> moo tax moo doon ci tegginam firi na jalaale ni ba mu yàgg rek seen xayma ak jël kaala gi wàccee ci benn baat xëttim yër ak naqir benn waay yàkkamte rek ni ko xanaa nàngam lay firi mu ne ko waa foofu nag jalaalay ni dëggam da koo rëcc boroom xam-xam bu teel na jalaale ni mu naan dafa juum keroog lay jàngale ci ruuxul bayaan ba yegsi ci surtout zumar mu ne leen suba dinaa gag surtout safaat ci sajaratu zaqum booba daf leen bëgg a wane sajaratu zaqum bi sax biir safara mu bënd bëgg leen a wane cigarette baaxul mm-hmm. mag ñeen di sa xay maag yaa yarute baax te mën a jàngale ak ñoo bëgg ndax cigarette baaxul rek daañu ko bàyyi moo tax sa xay maag nee na ilimaan ju ma xam ni da koy tux du ma jiite su ma jiitee ba pare danaa baa ma waat sama julli. est-ce que. téere yegg nañ ci ni tox cigarette moo gën a moo gën a bon naan sàngara. te booy tox cigarette boo ko tuubul boo dee boo moytu safara nga jëm. doo dugg àjjana. de danga naa am lu tax parce que dafa am lu ñu tuddee tabagisme passif. Ah. yow muy tox ci wetu ay nit ñuy noyyi di dee yàlla nee na ku rey nit safara nga jëm. waa ñi nga rey nag yow. rey nga leen bëgg assassin tey toxkat yi rek ñi rey bari leen tox nag. boo naanee sàngara ci yow lay yem. mais boo toxee rey ay ñi nga dendal. te yàlla nee na ku rey ni safara nga jëm. bu dee tayoo ko bu dee yaa ko tey joxe dëye bu dee tayoo ko. nga joxe dëye bu dee yaa ko nga dem safara. Oh. Hmm. yàlla nañ ci yàlla mu fël Seydi Hadj Malick ñëw Tiwaawan 1900 parce que Seydi Hadj Malick lu jiitu loolu 1873 boo demee ci téere bi Cheikh Tidiane ngay bind ni falaa budda min falaa budda li ma leen doon wax ci sëñ Haadi Touré booba dafa am sax lu ma fànq booba sëñ Haadi dafa jeexal xam-xam yi te bi mu ñëwee Seydi Hadj Malick da koo dalalaat da koo dalalaat à zéro parce que booba Fatiha bi rek nee na ko taril ma ko 99 fois boobu Cheikh Tidiane ngay moo ko bind ci téere bu ñu tuddee Hazal boo delloo ca référence ca booba da lay wax jaar jaaru maam Haadi ak Seydi Hadj Malick loolu lay indil. boobu Serigne Haadi bi muy ñëw dajal na fànn xam-xam. jeexal na fekk jeexal na alxuraan ñëw Seydi Hadj Malick dara la pour nga xam ne dimanche Seydi Hadj Malick doon daw. dugg ndaw Cheikh Tidiane si ñëw xalifa bi keroog bi mu sëñ Babacar yónnee ñaari muqaddam ñu ñëw mu way leen bi xuduumi xillay zil wafa badri gayaari bi saaditil aqtaari benn naar ne ko da ngaa daanu waroo woon a wax bi xillay zil wafa zul wafa waroon a wax sëñ Cheikh ne ko fa zul wafa lay sa ne ko du naat innama mudaafun saahi fastabini loolu du naat mudaaf ilayhi la du adjectif qualificatif parce que man xam-xam moo du duma ko xam-xami sëtami laay wax sëñ Mansour si borom daara benn nit yàlla dafa ne sëñ Xaaji Malick mm. léegi damay jàngale bayaan sëñ Babacar Reye ni ko ni ko man am naa sët buy jàngale sëñ Babacar Reye ni ko am naa doom yuy jàngale bayaan sëñ Mansour boobu ma ngi ca daara ja di toj man teq du ko neexee jàngale kulliya yëpp alkul kulliyaatu xam alkul alkulliyaatu xamsatun duuna intixaas xam-xam rek ko wóor de. parce que sëñ Haaj Malick sëñ ba sëñ sëñ Babacar si yëg nga sëñ Babacar bi mu mokkal xam-xamu bayaan mi ngi ci biiru yaayam. Hmm. nopp yi bu formé woo wax da koy dégg alaaj maag di jàngale bayaan sëñ Babacar mokkal bayaan moo tax ay téeram kenn ko firimoon sëñ Babacar. loolu benn borom xam-xam ñëw di ko jaay diir mbagg sëñ Babacar ne ko wàccal fas yu nu ñu koy waxee ci arab wàccal fas ko inzil li ko loolu mooy wàcceel fas wi mu ne ko kaw fas mu ne ko inzil mi na farasi mu ne ko min zarfiya la kenn du ko wax jugal ci fas wi déedéet góor ga di ko xaw ma lu ñuy wax mu ne ko da nga naan inzil min alal farasi nga am ñaari xarfu jar pour mu firi waajal fas ñu si moo xam ne xaja ko nàmpal est-ce que dagan naa lekk mu ne jox leen ko ngooñ ak yàpp bu lekkee ci ngooñ mi ngeen xam ne xar la bu lekkee ci yàpp yi xam ne xaj la ñu ne ko mu mos ci yàpp yi mos ci ngooñ mi mu ne gën dóor ko yat bu ne mbee ngeen xam ne xar la bu ne mbaw ngeen xam ne xaj la eh, ñu ne ko ñu dóor ko yat mu ne mbee ni mbaw bàyyeegul de. Habib Sarr de nee na ku mu neex ku mu neex ku mu neex nga di waa Tiwaawan raw ñu waaye maa leen raw moom doo ko ñeme wax. Uhuh. Habib Sarr nee na ku mu neex nga di Tiwaawan raw raw ñu ma waaye maa raw Tiwaawan nag kenn ñeme ko wax. te du tiitar nag zalika fadlullah yutihi man yasha wa ama bi ni'mati rabbika fa hadis sëñ Mansour di jàngale ba ci kull te almant daqdaan al kull xokkumu naa alal majmuwaay ka kulli za laysa za waquwaay sëñ Mansour dem ba ci biir naan kullu bun jut moom sëñ Mansour borom daara laay wax kii El Hadj Mansour tur kii Hadj Mansour kii moom mooy turandoom kii ko tuddee ba xawme ngoog suñu mag ñi sëñ Mansour ni kullu jun wa kullu jun bun wa maa baada bun kun wa maa baada jun bun eh, bàyyi sëñ Habib moo daan wax loo teg bàyyi sëñ Habib si suñu soppee sëñ Mansour mun sëñ Babacar ne ko am naa doom ju jàngale bayaan moo tax Cheikh Soukeyri borom xam-xam bu mag la te danaa indi histoire bi tax Seex Seydi Sukayri yónnee Seydi Hadji Malick ijaaza Sukayri Sukayri mi ngi woon Maroc mais borom xam-xam la woon bu yéegi dayoo Seydi Hadji Malick gisantewul woon ak moom mais dafa bindoon ay lettre pour barkeelu ci ay ijaazaam bi maam Abdoulaye jógee Gambie dem dem dem Maroc Seex Sukayri nañu ko heureusement ñëw nga parce que man dama doon xool ku wóor ku ma teg yóbbante Seex Seydi Hadji Malick boobu internet bi boo demee nga tàppee lettre Seydi Hadji Malick ci di nga fa gis lettre bi ak tontu bi hmm. nëbbuwul de ku tàpp ci internet gis lettre bi ak tontu bi ak la ko ci Cheikh Soukayrij wax waaye Soukayrij dégg na ci borom xam-xam yu ne ci kër gi ñu wax ni Cheikh su sëñ Babacar Sy baaba ta'ala Soukayrij daf koo mës a bind lettre lettre boo xam ne ay lettre kese la ay chiffres ay chiffres kese la. 20 30 40 50 60 80 90 yónnee ko sëñ Babacar sëñ Babacar woo sëñ Alioune Gueye taalibe waaw ni ko demal nga liir ko nga tontu ko sëñ Alioune Gueye ne ko ah sëñ bi mu ne ko lan la fi Alaaji Malick tege woon. quand même. lettre boo xam ni. lépp lépp lettre ay chiffres la rek ay chiffres la 20 30 40 20. loolu xanaa message codé yi ñu. ko ko demal. demal nga tontu ko. Mm. sëñ Aliou Gueye dem tontu lépp ñëw ni ko dafa mel ni lii rek la bëggoon a wax de. parce que boo jëlee kaaf 20 la boo jëlee laam 30 la boo jëlee kullu nag mooy 20 ak 30. man kaana miim gi 40 la nun gi 50 la geneen kaaf gi 20 la alif gi 1 la nun gi 50 la mu ne ko kullu mooy xam-xam bi nga joxe sànq ci bi ñu doog mu ko jox ko sëñ Babacar ne ko lii dong la yow yaa raw su koy rëj moom sëriñ Aline Gueye mi Seydi Hadj Malick jàngal sëñ Babacar ne ko yow yaa raw su koy rëj waaw akbar Cheikh su koy rëj mu ngi dajeeg si Abdou Hamid ci bato bi bi muy dem màkk moo tax bu ñëwee ci sëriñ Hamid bi mu aji màkk xam nga alaaj maa yi kaaba googu ñu naan dafa ñëw fekk kaaba gi tëj mu tijj ko mu jàng falaa bu da mu tijjeeku déedéet alaaj maa gi dafa fanaan ci biir kaaba gi dañ koo tëj ci biir fàtte ko parce que dafa ñëw bëgg dugg ziyaara ki ne ci bunt bi ni ko du ma la bàyyi nga dugg alaaj maa toog ci bunt bi yor ko du sam ak tegg na benn shérif ñëw di ko ñu koy tëjil waaji ne ko gaawal nga profité duggaale te génn alaaj maa dugg waa shérif bi génn mu kondikuru sam ñu fàtte ko tëj ko ca biir mu fanaan fa nag la mu doon bëgg te yonent bi ba soo jot yonent bi lu mu ko wax ca la ko wax lu mu ko jox ca la ko jox pa Abdou Aziz Mbaye ngi ci mu ngi ci mu ngi ci itam ndax ñi bëgg a bokk ci waxtaan wi euh, euh, bëri na Baye Baye Ibra Seck mi nga tudd léegi nii mhm. euh, ay sëtam ñu ngi réagir dégg naa moo njëkk a nekk maire Rufisque après da ko ngalandu wutu mhm. ci ci place boobu comme quoi Maodo da daan jàngal ba jàngal intellectuel yi kenn musta xeeb xam-xamam ndax xam-xam we jéggi woon dayoo ni mu kawe woon ëpp na donc université bi ñuy wax jartal am laamee ndax looloo am ñu jël euh, Baye Abdou Aziz mbay mi ci euh, téléphone bi doo ko jëlaat ñeneen ñoo xamante ni peut être bokk nañu ci ñi ñuy xaw a sélectionné tuuti rek mm. ngir ñu bokk ci waxtaan wi nga xam ne tey euh, Sidi Hadj Malick la ñu ko jagleel quartier général bu exceptionnel tey ci dimanche gii ci guddi gi ñu ci ndokkeel waa Tiwaawan yëpp allo allo allo Baye Aziz ñu ngi lay ñu ngi lay ziar bu baax yaa ngi en direct euh, ci euh, quartier général xam naa ni fa nga ne tey sa yaram daw na. waaw mais mais mais Pape sama yaram daw na bu baax di la nuyu. ñu ngi lay di nuyu. Euh, Ahmed Sarr Serigne Ahmed Sarr boobu. Mhm. ak Pape An ak Garmi ak ñi nga nekkal ci plateau bi. jërëjëf Mbaye d'accord naa ci date yi mu wax yépp waaw ci li mu indee maam Seydi Hadji Malick ci Tiwaawan ba mu fa installé. Mhm. ni mu demee dellu si waat ba dellu si waat doog a mhm, mhm. bëgg naa moo xal ma ci njaar ne dara mais ak Jack Saaw tamit. parce que bokk na ci référence yi nga xam ne maam Seydi Hadji Malick wax ni Jack Saaw bokk na ci lii mandargaal ni yàlla nangul nam beneen bi ma lay bëgg laaj nag te ma bëgg nga waxtaan ci dëgg-dëgg. mooy li nga xam mooy xilaat. ndax génnug Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee maam Seydi Hadji Malick daf cee wax dafa am loo xam ni daf cee wax ca sang ba te suul ba ña doon suul ña doon peel ña doon sotti ban koy sang ña nan ñoo doon sotti ndox mag ñooñu te boobu xam-xam ñu koy jàngale ci université yu mag yi te kenn weddi ko ci naar yi ak bu ak ak éléments yi nekk ci àddina bi mm-hmm. ma bëggoon loolu aussi nga wax ci parce que xam-xam bu xaw a doy waar la te góor gi indi ko indil woo xam ne ba tey kenn dindiwu ko. lool it bëgg naa nga wax ci Pape rek laa bëggoon a laaj ci ay question ak kéem góor gi Abdou Hamid ba ko gouverneur ne doo doo wasifaat yi lu tax mu dem wasifa ak lan moo dal gouverneur ginnaaw ba loolu it bëgg naa nga wax jërëjëf mbay ñu ngi lay gërëm bu baax euh, ci euh, intervention beeg yi nga xam ne ni euh, bëgg nga sëñ Ahmed Sarr tontu ci nañu jëlaat keneen rapidement bu fekkee possible na ci ginnaaw mu gaaw rek bu ko defee ñu mën a àggali waxtaan wi tey ci quartier général ci télévision Futur Média ñu jël keneen ci téléphone bi ñu ngi may xamal itam ni téléphone bi mujj naa xonk dafa saturé dafa saturé ok mm. <laughs> sant yàlla rek allo waaw euh, wàññil sa télé nga dégloo ak euh, téléphone bi salaam wa rahmatullah waaw am Ahmed Sarr la ñu bëgg a waxal waaw yow la kan ak fooy wootee Cheikh Ahmed Tidiane Seck doomu Serigne Idrissa Seck macha allah ñu ñu ngi lay déglu Seck ñu ngi lay déglu Seck waxal salaamaaleykum waaleykum salaam wa euh, waaw macha allah siwaa wa lakum haasi mahallu istiqaamatin mahallu istiqaamatin mhm, maa sha allah alaa fastaqimu mhm. eh, min xabli alaa fastaqimu mislu man xablakum marru maam xaaji Mansour mhm. tatlubu kulla yawmin al-karaama alam taru min xablihi istiqaama alam taru min xablihi istiqaama maa sha allah warubama dégg naa di wax ci mimie bi mimie bi mënul ànd beneen émission émission boppam la mhm. jërëjëf waaw loolu rek laa la doon wax jërëjëf tabarakallahu pour bokkee ko ci émission bi mimie bi émission boppam la bu ci dugg tey mhm. waaw émission boppam la jërëjëf Seck jërëjëf Seck tabarakallahu bu boobaa kenn ku nekk dugal ci sa xalaat allahumma salli ayyadaka allah amin ya rabbal alamin wa adala baqaak amin ya rabbal alamin amin wa aksara wa aksara allahu ah mislak macha allah amin ya rabbal alamin min xadarati cheikh alhaji malik radiallahu taala anhu amin ya rabbal alamin wa jami ayaalihi amin ya mhm. rabbal alamin la siyama xalifatuna al an mhm. ayyadahu allah wa adala baqaahu mhm. bil xayri wal afiyata jërëjëf Seck jërëjëf Seck allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jërëjëf macha allah jërëjëf Seck ñu ngi koy euh, gërëm bu euh, baax euh, na ñu jëlaat keneen mhm. ci euh, téléphone bi El Hadj Man Mbaye Garmi sunu xarit yaa ngi euh, yëngu. billaay ndeysaan sama euh, per Mara Dieng. taalibe bi. ah moom moom bu déggee loolu day daanu. moom yëngu na fi mu nekk nii <laughs> sama bàjjan Marème Fall lay yaay matu ak Mbayta. ndeysaan mu président Abdou juuf hmm. mu Maguette Diouf moom it fi mu toll yëngu na. Hmm. Maodo Malick Mbaye moom nee na actuellement ma nga Makka. ndeysaan waaye fi mu ne mu ngi wootee waaye mënul jot <laughs> waaw téléphone bee saturé ndax góor gee ni mel ndeysaan na fi sotu Assane Ndoye wallaahi moom itamit nee na dëgg-dëgg fi sama soppe bi dugg ci Alaaji Malick réy na ci man de wallaahi nee na gar bi xaw ma fu may jaar wallaahi wallaahi waaye daal nee na daal bég naa wallaahi mook mook mu meññ ak ñi ko meññ ñëpp wallaahi kontaan nañu ñu jël beneen téléspectateur oustaz allo allo kooku man la Yacine. Yacine yaa ngi woote fan. ma Louga. waaw kay ñu ngi lay déglu Yacine. Yes. Euh, man sama yaay moo yaay. waaw kay woo ko. Eh, waaw mag ñi tëddaguñu. mag ñi allah. allo. allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. ñu ngi ñu ngi ñu ngi lay dégg dégg loolu ak euh, waaw yaay ñu ngi lay nuyu. dañoo kontaan. jërëjëf. suñu xol sedd na. jërëjëf. daal ngeen def émission bu nekk nag mais bi ngeen def tey jii. Hmm. spécial la. bu ñëw dàq moroomam. ñoo ngi leen sant. Hmm. jërëjëf. Oh. waaw moom eh, defe naa dafa dagg xaar bu yàgg bi rek. Hmm. Eh, ñu ñu ñu beral loxo ñu nekk ci téléphone bi. wallaahi wallaahi tuuti waaw mënul ñàkk ba dañuy ñàkk seen xaalis. di composé di wane seen mbégte wane seen mbégte saa yu génnee ñu mer ne woote naa ba sonn te jotuma. billaahi ex dafa daanu leer waaye xam naa te yow laay évacué yaa ak Awa Mbaye comme keroog damaa évacué Mamadou Mouhamed Ndiaye eh, Seynabou Ñing Nadoura tamit. Ah. moom i taalibe cheikh bu mag boobu. ndeysaan ñu ngi koy nuyu bu baax. sama papa moom dafa dafay Dakar yaakaar na ndax nelawatul Serigne Babacar ñu ngi koy ziar bu baax alo allo. Hmm. allo salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. kooku ñu ngi leen di ziar. Hmm. Uh, waaw dégguñu la kookan la. allo. waaw ñu ngi ñu ngi dégg kookan la. Mouhamed Dia. Mouhamed Dia yaa ngi woote fan. maa ngi wootee Ngor. waaw kay Dia ñu ngi lay déglu Dia. Euh, ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar. delloo Char jàppuloo. ñu ngi ziar sëriñ bi bu baax sëñ Ahmad Sarr allo. ñu ngi dégg ñu ngi dégg ja sëñ Ahmad Sarr ñu ngi lay ziar. ñu ngi kontaan ci émission bi. di la féliciter di la encourager. Mhm. ndax kë euh, Seydil Hadj Malick lii rek la soxla. Mhm. xam-xam. Mhm. Seydil Hadj Malick lii rek la wone xam-xam yar. moom la jëfee dundam yëpp ñu ngi lay félicité ci émission bi. Mhm. di la encouragé la ñaanal yàlla. jërëjëf. jërëjëf jërëjëf bu baax di kontaan. wax dëgg yàlla njabootu Seydi El Hadj Malick yëpp kontaan nañ ci xam-xam bi nga wane. Mhm. ak ni nga ko waxee. ak yiw gi yar bi nga ko waxee. Mhm. yar ak teggin rek la Seydi El Hadj Malick ak xam-xam. loolu la ñu amoon lu ñuy participer ci émission bi. barakallah jërëjëf macha allah ñu ngi koy ñu ngi koy gërëm bu baax suñu xarit boobu woote fii ci Ngor Jalla sant ñu ngi koy ndokkeel ñu jël kenn rek mu jeex nag ñu àggali ak euh, Serigne Ahmed Sarr alo alo allo ayca na gaaw ci euh, téléphone yi numéro yaa ngi noonu affiché wu ci euh, suufu écran bi alo oui salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa demoon Fatma ji wàllu bi sama xarit xëy soog ma personne commandant bi. ay Pape loo de seen Sénégal. jërëjëf Seck. alaaji Abdou. wallaay. ah yow tam loolu de seen Sénégal. xaw ma ko sek si di faagay démb ma ca diwaan démb xujo démb ma ca Sagata. mu safeetu aram bonko ak Dior. bàyyi Soxna Mintu. bàyyi Serigne Ousmane. wallaay Thiat bàyyi Maodo. maa waxoon na ko koo jàkkaarloo na ko maa la gën bàyyi bu ko wedde def ci xale mbaa xamoo li nga ko wax lan la ak jàpp. lan lay sekk. garmi hmm. ay ki ngeen waxtaane Pape Am. la may hmm. oustaz ay ki ngeen waxtaane kenn du moom. sama sëriñ bi toog ay ki ngeen waxtaane kenn du moom. waaye tubaarkàlla bi nu ko waxtaanee ki ko waxtaanee tubaarkàlla muy Samara ko jooju dañ koy ñaanal yàlla. amiin Seck yàlla yokk ko. amiin mi ngi seet li neex réew mi mu koy doxal. Hmm. mun noonu ko tubaarkàlla laaw la cat di ko ñaanal rek yàlla yokk léppam dëgëral ko. amiin Seck muy sama rakk jooju QG nga yàgg moom la quartier général QG <laughs> QG nga waxtaane tey sunu sang bi. Hmm. yàlla mi am jàmm yàlla na la yàlla jàmmal. amiin yàlla bàyyi la. bàyyi la sunu kanam. amiin Seck bàyyi la ci biir askan bi ci société bi vraiment. Hmm. ñëpp a kontaan kenn nelawul ñëpp permet ni. toog boobu nga toog yëkkati sa tànk. ajal ajal <laughs> ajal. <laughs> waaw kay jërëjëf. jërëjëf Seck Adja Sow Bousso sama sama sama jigéen la moom ba Sénégal yëpp xam ko élage Hadj. wallay ndeysaan Adja Bousso. day day ku baax ñu koy gërëm bu baax Soda Baye Mbagnick Seck. wallay ndeysaan xam baayam ba alaaji la ca Màkka. wallay Cheikh la ca Nimzaat. dëgg la dëgg la moo dëkk moo dëkk Ndar. wallaay moo dëkk Ndar Seck. dëgg-dëgg góoru jabu moo dëkk ndar wallaay wallaay nekk na nit ku baax nag wallaay ku baax la waaw moom daal saa yoo tàbbee ci lu baax xolam ak xelam mi ngi gërëm ñëpp en tout cas yéen a ngi woote sànq ba tey ak fu ngeen mënti nekk kontaan nañu ñun itam ndax gëm nañu ni euh, boo dee def mbir moom mu jóge ci xol ala kuli al day dugg ci ay xol te xam naa ni euh, quartier général dugg na ci seeni xol mm. euh, di ñaan rek ngeen di ñu ñaanal waaw ku ñu kenn xam-xam xëy na suñu borom moo ñu wërsëgale télé bu ñëpp yi seetaan mm. moo tax ñu nit profité di invité borom xam-xam yi nga xam ne ñaare pour nga jot ci ñoom day jafe lool waaye dañ leen ko yombalal guddi gi euh, ngeen di waxtaan ak ñoom ñuy santaat bu baax Serigne Ahmed Sarr euh, ndax euh, émission bi jàmpoon na oustaz mu bàyyi lépp rek ñëw ci ndigalu xalif bi ci ndigalu xalif bi alamin mu bàyyi lépp jóge Louga mhm. dafa am ñu war a wax mhm. am ñoo xam ne warunoo wax mhm. sa maam Cheikh Sidil Hadji Malick dafa wax ni jamono li ko yàq mooy ki xamul te xamul ni xamul te ko ni xamoo hmm. nee na kooku lu yàq moom mm-hmm. Mm-hmm. mooy ki xamul te xamul ni xamul te xamul lañ ko ni xamoo mm-hmm. wa min ajabil ashyaa'i annaka laa tadri wa annaka laa tadri bi annaka bari na kuy défendre kilifaam ñàkk a tax mu suufeel kilifaam dëgg la war a nit balaa wax wala ngay défendre kenn war ngaa am ay sources yu leer dëgg ki nu woo tey nag ngay direct Alaaji Malick ci wàllu way juróom bu góor wàllu way juróom bu jigéen mm-hmm. waaye di borom xam-xam mm-hmm. bu njabootu Seydil Hadji Malick tànn di leen yónni mm-hmm. am nañu am na fi ñu ci ne waaye kër Seydil Hadji Malick ku ñu tànn di la yónni am na lu ñu gis ci yow rafet nga jikko am nga yar am nga xam-xam. yar la nu njëkk a xool ba noppi. am nga xam-xam mais am nga pédagogie. pour mën a wax ci yow rek ànd. waaw nit alaaj Pape il faut pour nga mën a wax ak moom mu déglu la. Mhm. li ngay wax il faut mu jógee ci sa xol ba noppi. Mhm. mais il faut nga ànd ak yar. Mhm. mais il faut nga wax ko lu mu mën a dégg. Ahmed nag bi nu koy bi nu ko woowee. bu bàyyi yitteem. ndax ma nga lu ko ca daara ja jàngale. Mm. mu ñaan ndigal way juram bii di sëriñ Abdul Aziz Al Amin di xalif général de tiijaan kii bu joxee ndigal njabootu Alaaji Malick gépp jox nañ ndigal kër Alaaji Malick amul amul deuxième ay premier rek a fa ne dëgg la ndax moo dooy géej mais ay dex rek a ko wër mais man li ma jaaxal jommal ma mooy Serigne Babacar si mm-hmm. jommal gaa yi Alaaji Mansour Alxaaji Abdu Muhammadul Habib mais ñoom Alaaji Malick jommal leen mm-hmm. mais kon kanay Seex ma Alxaaji Malick jërëjëf sëñ Baab sëñ Babacar toog na tisbaar ba tàkkusaan tëju na suba ba tisbaar waxula kenn nekk ci benn xaal waaw mm. sëñ Mansour ñu dugg ni ko lan la mu ni seen benn bayutu maam Seydi Hadj Malick moo ma jàpp ca suba ba fi ma toll ma yor xaal te mooy jabal huda ma ba wan wal ba adaban hamlun bi yont bi Seydi Hadj Malick di jàngale yont bi ni ñii dañ ne 6 mois la ñu ëmb Seydina Muhammad ñii ni 7 mois ñii ni 8 ñii ni 9 ñii ni 10 mois mhm. Seydi Hadj Malick sëñ Babacar ne ci bayit bala yéen do xalaat parce que tolluwaay la juróom benn weer bu ko sa jabar boo àndeek jigéen takkee jabar mu am juróom weer am doom doom ja yaa jur parce que yàlla dafa ne hamluhu wa fisaaluhu salaasuuna shahran ëmb géeg wasin gi 30 mois la yàlla ni euh, euh, euh, wal waalidaat yurdi'na awlaadahunna hawlayni kaamilayni liman arada an yutimma radaa ñàmpal leen 2 ans kon 2 ans boo ko xoolee ñaari 12 mois la muy 24 24 boo ko génnee ci 30 6 a ci des kon 6 yooyu bu ko sa jabar ëmbee moom moom doom ci mu yendoo xalaat ci bayit bi waaye yemu ci boo jëlee 6 plus 7 plus plus 9 plus 10 la jox

gañ gañ am na beneen air am na beneen air min babi tain wala min sumasitati asma min babi tain wala min sumasitati ashurin raa mani gañ gañ am na beneen am na beneen beneen air commandé sa air ba mu ne dégg nga texte سوى من بعض طاع ولا من ثم ستة أشهر نعاك في صبحي لو يا الحديث ما وصلي مدى جزل بلا وهل ملنا وسلم يا إلهي وجزينا محمد المصطفى يا ترى ويبد مصطفى معطار في القدم من بعد تائن فلما نان وعبد مطالب من بعد fii mu ni min baat di te bu ci nekk mi na ko jiitu min xarfu jarin la baayit wa bayin wabtadi fil amkina bi min waqad tëti li bat il azmina loolu Ibn Malik wax mhm. mu ni fële wa abdu mutalibin min baadu marra fii mu ni min baadi taa in wala min lu tax waxul fële min baadi ba pare ni min baadu moo doon ci xam-xamam départ téere bi xilaasu zahab li sunu góor gi bàyyi boobu sekk wax di borom xam-xam bu mag bu nekk fii ci Dakar sëñ Abdou wóolu ko hmm. téere yëpp firi na ko ci ay kaset muy diwaan sëñ Babacar muy diwaan sëñ Hadji Malick moo doon wax loolu moo doon wax loolu sànq tattalu bu kulli yawmin alkarama sëñ Hadji Malick ne yaa ngi wane ay karaama di wane alal mu ni alam taru min qabli istaqaama xanaa mënoo wane wut njub ba pare soog a woote alal mu ni wa rubbama tadammanat karamatun istidrajan laa taxta ilmin haaja mhm. alaaj maa ngi ne ne karaama mën na dem ba ba yàlla di la jay ba boo ñaanee yàlla mu nangu fekk na mhm. yàlla lay jay rek sa nastadrijuhum min haythu laa ya'lamun <laughs> dëgg la de. moo doon nag fële ni min baadu baadu ak xablu ibnu Malik nee na bu fekkee amul mudaaf ilayhi dañ koy binaal moo tax min baadu lillahi al amru min xablu wa min baadu. waaye bu fekkee ne nag dafa am mudaaf ilayhi dañ koy jar moo tax min baadi taayin moo tax mu def ko mudaaf ak mudaaf ilayhi Seydi Hadj Malik jàngale nag wane ni 40 yee ca laa doon wax nag moo indi 40 yooyu. waaye dafa am question bu am solo buñ ma laaj. Mm-hmm. mooy Seydi Hadj Malik at yi mu toog ci jarnde parce que Ndiarndé sept ans Seydi Hadji Malick yi nekk dafa di defar ay nit mais avant Ndiarndé Seydi Hadji Malick nekk na boqal nekk na ndomba no nekk na gaaya doon fa jàngale xeet xam-xam yépp mhm. bi Seydi Hadji Malick demee ba mujj gi mu jugee fa Seydi Hadji Malick soog a ñëw Ndiarndé waaye avant boobu ci la dem màkk bi muy dem màkk jaar Alexandrie keroog taatu kër ga ñu taxawoon naar yi ca kaw bañ ko séenee ñuulaay bi xaleeb naar ba dafa doon raay loxo alaaj Malick ba xam ñuulaay bi dana ko tax Hmm. ñu entretien Seydi Hadji Malick dugg ak moom ci xam-xam ñu yëg ni Alaaji Malick mi li mu leen di wax kenn mënu koo dindi ba pare mu wax leen téere ba mu nekk gars yi woo borom xam-xam yëpp posé ko ay leen daanelee ñu jëli téere ba la ñu soogee xam ne leen Alaaji Malick wax mooy dëgg mu jógee fa dem màkk ñuy séddale jukki kaamil bañ ko sédd parce que nit ku ñuul la jàngul Alaaji <laughs> Malick nee na keroog laa jàng alxuraan yoo xam ne moom xam naa ne ngis la nga ca ah, hmm. ba mu yuuxoo neexal baat ba la màkk yëpp daan topp Seydi Hadji Malick dañ ko bëggoon tuutal ba mu jàngee alxuraan la Màkka wàcc Seydi maa Maalik nag ni dootul ñibbi seeti day toog ci Seydina Muhammad moo tax keroog Kaaba gi li tax mu dugg ca Kaaba ga mooy dañ koo fàtte woon tëjaale ko ca biir bu ñaan fay soxlaam ba ñu xëy suba tijji waaye eh looy def ci ko yaa ma tojoon fàtte ñaan nag yàlla maa ngi lay ñaan lépp loo may jox ci àdduna bul ma ko jox fi dencal ma ko ba ëllëg yowmal xiyaamati maa ngi lay ñaan tool yu ma ñaqee di ko aaree sama ngor looloo indi jagsaaw maa ngi lay ñaan samay taalibeeg samay njaboot bu leen kenn xàmmee moo tax Serigne Xaaj maa ngi nee na kër gi santul si de yàlla la sant intéressé wu ko ngay sëtu Alaaji Maalik xam nga lu ko intéressé jikkoy Alaaji Maalik gi nekk bu la Seydi Hajj Maalik jureetu jukko nee na yàq yàq yàquuti bi la njamale yonent bee ko ñor te Seydina Muhammad loolu la waxoon nee na Faatimatu bintu Rasul bu defee lu nekku safara la jëm Alaaji Maalik ne comme lu may def yonent bi gi santul si la sant moo tax mu xaddamu Seydi Hajj Maalik yi sëñ Babacar kenn mosu leen mën a xàmme ala sëñ Babacar ànd naa mu xaddam dem Ndar saal bi mu toog boo dugg see du duy doo xam kuy sëñ Babacar mm. te loolu mi ngi ko doon ci Seydina Muhammad parce que Aboubacar ak Seydina Muhammad bi ñu egsee Madina keroog kenn xamewul ku ci Seydina Muhammad Seydina Aboubacar ndax humilité humilité ku nekk leer xamuñu ku ci yonent bi kii mooy yonent pour ñu xàmmee Seydina Muhammad moo jóg jël kaalaam mbaaral yonent bi ñu ni islal siddiqi arrafahum ijaw kul indoo kaala gi mu ko lalal ñu ne ah kon ki ñuy mbaaral moo mooy surga bi ki muy mbaaral mooy sang bi say xaaj maa ngi ni bu kenn xàmmee sama njaboot ak sama taalib moo tax sëñ jeex naan fi atum tashuddu ila na daaj na jaati raxila wa tarud naxwa zilaliha tawsila la na karo boo leen gisee kuréel googu nee na kenn ku ci nekk da nga gis ni ponkal la ngand mm. say xaay maay nag dem jaar na nag bi mu jógee foofu rek ba dem màkk ba dellu si njaar na nag mu yóbbu fa ay nit yàlla defar leen alhaaji rawaan ngom ca ñi mu defar ca njaarne la njaarne góor gi sàmba ngoti loo neew na junniy nit mën naa leen jàngal junniy turu yàlla te li ma xam du jeex góor googu bisu ngénteem xaru ngénteem dafa rëccoon mu jàpp

parce que lu tax xam nga Pape parce que yàlla nangul weer taalibe Cheikh allah alaaji Babacar Diallo bu baax bi wallaay <laughs> loolu tax sëriñ Haaj Malick ne alhaaji Malick Sarr mii bu buudi ca la nekk booba njaar ne alaaji defal na leen tarbiya ba da ngay gise ku jógee ci garab daanu ci suuf te dara doo jot barke sax sëriñ Haaj Malick dem sa yoon hmm. da ngay fekk jën maanaam cin luy cin luy saas ak dëwlin nga dugal sa loxo génne jën lekk doo lakk hmm. boobu ña nga ñaar de waaw parce que boobu foofu rek la demoon yóbbu booba déconnecté nañ hmm. xam nga boobu ban année la ay Ah, si booba ñi muy jàngal ca la leen defar seen xaaj maa bi mu ñëw te Tiwaawan di jàngal fekk na boobu mu xadum yëpp pare nañ ah. Mm-hmm. pare nañ ba mu tas leen ci gox yi ba pare nag li gën a jafe la seen xaaj maa def jël ay doomam jigéen may ko mu xaddam yi amul benn borom alal bu seen xaaj maa li may doom daa seet mu xaddam yi nga xam ne ñoo ko daroon mu jël ay doomu jigéen may leen. sëñ xaaji Touré moom la mayoon doom pap yaayu sëñ xaaji Maodo Touré ma nga sëyi ca Faas ca fa mm-hmm. xam ne amul dara ca njendeer mm-hmm. alaaji abdou nii fa lañ ko yóbboon keroog ba ba nekkaay ba méttee ba metti tante yi ñoo ñëw seen xaj maa ni abdou aziz boo ko jëlewul faas léegi mu dee ñu ñëw alaaji abdou pap seen xaaj maak mu ne ko bàyyi sëñ aadi ma baax rek la bëgg waaye sëñ xaadi moo dem ba woy seex seen xaaji maalik seen xaaj maalik jël mag ñu den defa njaano góor gi moor binta si keroog ca njaano la ko defar alhaaji góor a saane keroog seen xaaj maalik defal alhaaji daawda dia ca mbëlëxe ku ne xam na ay maayam sëriñ xayma fekk de góor gi abdou salaam loo sëriñ xayma ki ñam defar ca njaarne la bokk góor gi abdou faati ñang ñam defar ca njaarne la la bokk alhaaji mëgay njare ca euh, góor gi mëgay njare ca njara wàqi parce que ñetti njara am njara wàqi njara bayal ak ak ak ak ak ak njara daqaar kooku beneen histoire la. ah mbay xanaa ñun waa Njare Dakar la ñoo ko. góor yi alxaaj ma yor Sall bàyyi si Yaba Sall. muy 270 muqaddam yoo xam ne. macha allah Cheikh Alxaaj Maalik foofu leen defaree. macha allah macha allah. soog a génn nag. bi muy ñëw Tiwaawan boo fekk na yëpp jeex na. moo tax 270 mu xaddam la Seex Seydi Hajji Maalik defar. te bi mu leen di defar ñëwagul Tiwaawan. boobu ñëwagul Tiwaawan. Mm-hmm. moo tax Tiwaawan jàngale ma li tax mu yéeme woon parce que boobu université ba kenn xamu nu toll. moo tax Maam Ablaye ci baaxam. bi mu ñëwee Tiwaawan gani Seex Seydi Hajji Maalik parce que ñu bëri dañuy def amalgame diggante kër yi kër yi benn lañ. Mm-hmm. kër Seydi Hajji Maalik Maam Ablaye Niass dafa bëggoon Seex Seydi Hajji Maalik. Cheikh. keroog bi mu jógee Maroc dafa jubal si direct Tivaouane am fa 6 mois juróom benn weer mhm. sëñ Mansour moo ne Seydi Lamine Niass sa maam am na fi 6 mois Tivaouane moo ko Seydi Hadj Maam seq lañ seqoon ñoom ñaar ba mu jeexee maam Ablaye yeewu ko dem sëñ sëñ sëñ Hadj Malick seq ak moom ay kóllëre bind ci moom xasida mhm. mooy ata habibi larbi min faasi mhm. loola kóllëre googu mooy dox ba jamono yi bu nekk man danaay nekk Tivaouane sëñ Abdou Aziz njabootu maam Baye Niass ñëw foofa yendu ak moom tey rek maa ngi gis ci internet bi euh, sëñ Abdou sëñ euh, Ahmed Khalifa ndeysaan euh, waxtaan wu mu def ci sëñ Abdou di def témoignage ni moom li ko rëccoon ci papaam lépp ci sëñ Abdou la ko dabeewaate ah, wax na ko ni ko man Pape Malick nii man maa maa gën ci yow ci Pape Malick sëñ Abdou gi toog sëñ Bay Mansour mi ngi taxaw mm-hmm. mu ni sëñ Bay Mansour sa maam sa baay mm-hmm. maam Haaji Mansour keroog dafa ni ma doom xaalis nga bëgg wala xaas ma ne ko jox ma xaalis nee na keroog mu jox ma tur yàlla boo xam ne baa ak raa la tàmbalee boo ko yoree ay alal nga yor baa ak raa kon ñoom benn lañ ba léegi réew ñu sëy muy muy Cheikh Ahmad Khalifa lu ne lay defal Serigne Abdou moo tax diggante ñaari kër yooyu eh, Cheikh Seydi Hadji Malick li ci am solo mooy Maodo jàngaleem kenn mësu cee rax bi maam Ablaye ñëwee Tiwaawan nag ak lañu ñu seq nag ñoom ñaar mu ne maam Abdoulaye nag njaboot gi a ah, comme yaa ngi fi téye macha allah borom may nga borom xam-xam nga ah am na ci ñoo xam ne bu ñu jàngalee pare mu toppal leen ak yenn njaboot gi mu dénk leen leen moom leen di jàngal ba pare di jiite jàkka ja parce que kooku seen kóllëre moo tax maam Khalifa Niass bi mu demee ba Ndar fekk fa Seex Seydi Haaji Malick dafa ne nin nal maraama wa nin nal xaasil xaaji min nay li yum ni liqa i seydil xaaji imaamuna إمامنا وحبيب شيخ ذكر يوقظ من قد نام في اللون أو سندوني للبان المرام وللنا حاسي الحاج يمنيني للقاء سيدنا دفلني لخنلنا المرام وللنا خاسي الحاج السماء سيد الحاج مالك المرام وانلنا عاسيا علي يمني للقاء سيد الحاج lañ doon sàkku am nañ ko wa ninal qaasi alxaaji am nañ jublu alaay Malik min li ci amu min nayli yum ni liqaa i saydil mu teg te imaamu naa mun saydil xaaji maa mooy sunu njër ñu ñëpp wa habibu cheikhi walidina man lam yaxib in yarjuhu raji mook Seydi Xadi Xaaj Malik ñu seq ay kóllëre maam xalifa ca xam-xam bu rëy ba bind ci Seex Seydi Xaaj Malik boo demee ca Kibritu Ahmad ca suuf ma nga ca bind wa kaana yuf fii li baadu asraar yi neen Seydi Xaaj Malik ku ñàkkoon kañaan la nee na ba ci yenn xam-xam asraar yi ma ko doon jox ca ba ca suuf maam xalifa bi nu ko muy kóllëre xam ni Cheikh Seydi Hadj Malick moom la mm-hmm. gagné woon Sénégal parce que nitu yàlla yépp noonu la meloon ñoom maam borom Touba Seydi Hadj Malick daf ko jox téere ni ko hadiyatun mujibu hajjite laabu mahabbatin ayuhal xubaabu mm-hmm. lii day addi la man Cheikh Seydi Hadj Malick jox muy fasun kóllëre maam borom Touba tontu ko ni ko wa mattaxastu xalilan kuntu arifuhu illaa tu ko fawqal kulli biroota bi mm-hmm. man maam borom la teg kaw xarit ñëpp mais li sëriñ Abdou Abdou Aziz Mbaye sunu xarit nu ngi koy nuyu sunu nijaay bokk fii télévision Futurs Médias dafa laaj ni diggante gouverneur ak alxaaj Abdou Hamid Kane waaw xam nga booba Seydi Hadj Malick danaa leeral sax tuuti ci gouverneur yi parce que Seydi Hadj Malick yàlla dafa ko mayoon baatin boo xam ne daaw ko manifester waaye nag bu réagir rek nga yëg ni baatin am na parce que bu demee ba naan yonente saddaqta ala ma xulta fi awdi diine na saddaqta taawum xaataba doo koy wax koo jàkkaarloowul mhm. gouverneur ma ne ko ba fa kenn wasifa maam Abdoulaye euh, maam Abdou Hamid bind seet xarit Haj Malick leet Alhaaj Malick xam ne foofa moom daanaka benn béy doy na. mais gouverneur dafa tere woon ak Alhaaj Abdou Hamid Kan. wasifa mu wasifa ca ca dëkk ba. parce que da leen doon tànqal. mar dinaa la wax Sëriñ Haj Malick lan moo tax mu tànqal tubaab bi biir ndar. ndegam moo tànqal tubaab bi biir ndar ca gouverneur yi kon maam Abdou Hamid pour gouverneur bu bolokaat du ko ka nekk bolokaat du ko jaaxal. ba mu ko bindee ca la ko yónnee xasida ba xasida ba ba ko Seex Seydi Xaaj Maalik yónnee ba ca sadaqa ala maa xulta fii di aw di dinaa gariban kama fil badi yaa xayra rahimi ala yaa rasulallah yaa afdala wara fa ha naan fii diiqin shadida taraakumi fa ha nahnu fii diiqin walam narju faarijat si wallahi wal haadi li subulil makarim sadaqta ala maa ba dafay egg mu jàng ko ñu jël bolokaan affecté ko waaye boobu Cheikh Seydi Hadj Malick lu njëkk loola dafa am lu xewoon mhm. parce que booba Seydi Hadj Malick dañ ko convoqué Ndar parce que li ñu convoqué woon Alaaji Malick daf góor gi baana jàng di doom ci góor gi ma sàmba jiiri jàng mhm. dafa gis benn liste am nit ñoo xam ne dañ leen a waroon a convoqué tubaab bi war leen a jàpp tëj leen ka ca njëkkoon mooy sëriñ ñoom rek muy góor gi biraan awa mhm. sëriñ kokki ahmadou aminta ca ñañ convoqué woon la te bu demee tubaab bi da ko nar a tëj sëriñ mënu Maram ca Jóoba moom it sëñ tubaab bi convoqué ko war koo tëj góor gi Algafa Algafa Birane Gueye tubaab bi convoqué ko bu demee da koo nar a tëj góor gi Waynde Taal tubaab bi convoqué ko te bu demee da ko war a tëj góor gi Samba Lawbe Njaay tubaab bi convoqué ko te bu demee daf ko war a tëj ñooñu la Seex Seydi Haaji Maalik bokkoon nekkoon te de si boobam moom Alaaji góor gi Massamba Diéry Diallo ni ko ma Diéry Dieng ni ko ku nëbbutul jar nga alaaj maa ngi du ma xaar ñu may convaincre man maay demal sama bopp. Ah, waaw fit. nee na bi may dugg bureau daal foogoon naa li may gis ñoom ñu ngi koy gis. Mm-hmm. Seydi Hadji boo convaincre wuñu ko benn yoon de convaincre nañu ko sept fois. 1893 la ko gouverneur de Lamotte njëkk a convoqué posé ko ay question Seydi Hadji tontu mënu ko da ko dara mu bàyyi ko ñibbi. 1894 gouverneur Moutet convoqué ko Seydi Hadji Malick tontu ko mu libéré ko bàyyi ko mu dem 19 mars 1995 gouverneur Sodié convoqué Seydi Hadji Malick laaj koy question enquête ko mënu ko jàpp mu bàyyi ko mu dem 1902 gouverneur Baley convoqué Seydi Hadji Malick laaj ko mu tontu ko mënu ko téye mu bàyyi ko mu dem 15 10 19 1903 Rogna Charles convoqué Seydi Hadji Malick mu tontu ko mënu koo téye mu bàyyi ko mu dem 17 mai 1904 dix Camille convoqué Cheikh Seydi Hadj Malick mënu koo téye mu bàyyi ko mu jëm 20 mai 1905 gouverneur Pinot convoqué Seydi Hadj Malick mënu koo téye mu bàyyi ko mu dem 18 juin dix Camille convoqué Cheikh Seydi Hadj Malick mënu koo téye mu bàyyi ko mu dem 1906 nag la ko dégg nga euh, René Charles convoqué waat ni Seydi Hadj Malick mii nag ku yeboo bàyyi ko mu ni leen nag dafa am lu ma soxla mooy autorisation sama laa ila ak sama zikkar ji jëm kaw moo tax tubaab bi li ñuy saay saay saay li des li li maam xaaji Mansour ne min muminin muslimin aw kaafirin lahu shahadatun fii awsaafi yahwa mu ne muy jullit di yéefar ku ne tagg nga Seex Seydi Haaji Maalik waxtu maam témoignage mm-hmm. destin di anglais ne Malik Sy had a more gradual and steady engagement with the colonial authorities ne the grand Morobo of Tivaouane came increasingly to cooperate with the regime as he was never however a puppet of the French lu mu wundu mbay ah man mbay mu ni Seex Seydi Hajji Maalik dafa jékki-jékki daal génn génn génn réew mi de wallaahi mu ni Seex Seydi Hajji Maalik mu sa nekk doomu tubaab bi musul eh. nekk seen doom moo tax keroog bi nga xam ne ni ndar gétt ndar dañoo bañoon a ñakku li nga ma doon laaj Pape Cheikh ci Seydi Hajji Maalik stratégie am tubaab yi dañuy taal gétt ndar parce que pourquoi ñu bañ a nattu ba bañ a ñakku Alaaji Maalik taalal na ci téere mu ni sukkurul wasaa iti waajibun tubaab yi war na leen a gërëm mu ni parce que bu ñu amee lampi mbedd am ndox mu ñuy jàppee di ci di di ci laabe sunu téere yi seen bato yi di ko indi sukkur lu wasaayu te waajabut mhm. mhm. ca la dem jëleel génn xam ni tubaab bi ne day taal waa gendar sëriñ Xaaj Maalik ni ko ni ko lu tax mu ne ko dañoo dof mu ne ko bu ñu dofee nga nite mu ne ko dañoo yard ko mu ne ko bu ñu yard ko nga yaru mu ne ko tubaab bi lim la indee fii bis boo ko defee di nga ñàkk lépp loo amoon Alaaji Malick moo dem jëkkati mbaggam ñu ñekk ko ñëpp ne ah Malick Faa Wade ñàkk na nañ dem ñàkku ji keroog gét ndar gépp a looloo tax keroog gét ndar daa ko yaatu ko Seydil Hadji Malick loxo ca na fii liggéeyam ci réew mi kuy siñ ak mbaa siñal ko ko maam Maodo si amoo morom jëfal nga yàlla sa borom Maodo tagg rasuulu ñépp yéem tànki tagam yi jël nga ko jaaraama Seydil Hadji di maalik yawmi tee sunas xayri xalqillaahi deefi mawdo dundal nga ko looloo wara mu ni alaa yaa rasuulallaahi yaa abdalal waraa fa haa naxnu fi dayqin shadiidi taraakumi fa haa naxnu fi dayqin walam narju faarijan siwallaahi walhaadi li subrel makarimi sidil aadi malik day jàng ak di jànguloo day topp ak di toppuloo day moytu ak di moytuloo lii nga saxal ba ñëpp ko bilaay waat naa ci maaka maam sëriñ mbay si Mansoor saa taxawee ñoo fi sa doom ngir sa meen maam Maodo moo ñi du maam keneen meneen ci ñun dafay forox wallaahi Cheikh Seydi Hadji Malick Maodo jooyu ñu si jox sa weet ñoo fi sa doom ngir sa meen Maodo moom kenn meneen ci ñun dafay forox diri lay jooy lay jooy sa baay nga noon di dee si waawaaw rasool la woon du mooy seen baay ayu bi yaa Seydi El Hadji Malick Maodo Seydi El Hadji Malick tubloona cedd teral na ñeeño ku weddi laajal suñu maam musaale mbaay Amadou Mbay Maodo Ousmane Seex Sil Maalik da lay tula dugal da lay yëgal la lay ëllëg mbugal ki lay yàlla wax looloo waral Maodo na ñëpp jur bàyyi fi ma jur bàyyi fi ba ñu màggale ñu xam ni kenn du Sidil Aaji Malick ku mel ni Serigne Babacar Sy ku nekk bëggoon na ko jur ci réew mii ku mel ni borom kaala gi Alhaaji Mansour Sy Malick ku nekk bëggoon na ko jur ci réew mii ku mel ni borom quarante rofat Cheikh Sidil Aaji Malick na ñëpp ni nii ñu màggal Maodo da lay digal du la dugal da lay ti jalalaat ëllëg mbugal ti lay jëfee la yàlla wax di lii mu looy jooy yoroo lu dul sa téere bi kurus gi ak sa gopp gi Maodo fii nga xaraa sa jàng bi lii nga saxal ba ñëpp fëx Cheikh Sidi Hadji Malick jàppataxoon lex yey larax su joota defoon jabay melax mii noon na dajaay bu sax te nga daa suñu sanax rek Maodo. billaahi. su bëggoon lu ne mu waaye bëggul. Hmm. ngir la mu xam ni nit yax day fa nag bilaay waat naa. ci barke maa ngi sëriñ mbay si. man soo. bu saa taxawee. waaw jërëjëf kenn mosul gis loolu tey daal Sénégal yëpp bég nañu daal El Hadj Ousmane Mbaye Garmi si daal kontaan nañu ci moom te ngañ ak ñi mu àndal moom ñi mu àndal ñëpp wallaay wallaay Baye mbay mi toog macha allah wallaay xam naa ne daal Mansour ma ko jur bég na wallaay wallaay Abdoul Aziz bég na wallaay Daagoor bég na wallaay waaye addina yëpp bég na nu Baye seex wallaay Malick sunu xarit sunu soppe Malick euh, bi nga xam ne moo bokk Abdoulaye Diaw mhm. te nekk ak Ahmed Amar. Mhm. nee na Amadou Mbaye Gar mi ñun danoo yeewu yee yee ñeneen ñii nelaw. wallaay wallaay ñun ñëpp bokk di déglu. Binta Xuma Diop moom itam nee na bég na lool. wallaay Baye Cheikh Mbaye Camara Sega mhm. ma yëg tey. Mbaye Camara man Sega Baas. moom kontaan na lool. di la wax ne nag na waa jak saaw waaw Ngoone ak Asisi. si na daal dëgg-dëgg ñun tam bég nañu. Baye Cheikh daal réew mi daal amul daal kenn ko kontaanul ci bés bi nga xam ne moom loolu ñu jagleel sunu maam ju baax ji di maam Maodo mi nga xam ne tubaarkàlla baax rek la ñëpp xam ci moom ak jaamu yàlla. voilà et puis ni QG bi. ni bi ñu mm. jagleeloon Cheikhul Khadim euh, dañu ko boole ci QG hors série yi. Mm. alors daañu leen tànnal bis boo xam ni euh, ci lañu koy rediffuser. parce que boobu ba tey ñu ngi ñuy laaj euh, kañ ngeen koy tegaat ak mm. yooyu donc bi nga xamee ni moom la ñu def ci Sidi Hadj Malick ak ba ñu def fan yële. jagleel ko Cheikhul Khadim daañu leen wax kañ la ñu koy rediffuser. am na itam yeneen yu des ci série QG or série yi ci semaine bi laataa ñuy jeexal koor gi. Euh, dinañ leen ko annoncé incha allah ci euh, programme yu télévision Futur Média 2h07 moo jot te jot te doyaluñu. déedéet sànq naa ñu ngi jëm xëdd. <laughs> Hmm. waaye dañu bëri ay xarit yoo xamee ni ay soppe euh, ñu doon i taalibe Cheikh ba noppi itam doon ay nit yu yàlla baaxal ñoom itam mënuñu leen bañ a bégal. dëgg la ajot ndee la hmm. moom suñu yaay jooju. fa mu nekk kontaan na. waaw ma nga ca Màkkatal mu Karam waa Kër Ngalgu Njaay itam. Hmm. kontaan nañu Laay Njaay ngal waaw waaw Papa Njaay Ngalgu. ak Papa Njaay mu Ngalgu Njaay. voilà Papa kontaan na waaye Laay Njaay fi mu ne Ndiaye sa xarit Laye moom itam euh, daanu na. ki ni dalal euh, Tiwaawan waaw kan la. nga xam si déet déet Baye Cheikh. bërki démb moo dalal ca ëtt bu mag boobu nga xam ne mooy Thiès. wax nga dëgg. ñépp xam ko. Uh-huh. nga xam ne daal dëgg-dëgg Baye Cheikh ku ma sa toog fii. Uh-huh. këram yi tiituru këram yi. jóge na ci moom muy Modou Khoule Modou Khoule Modou Khoule. nee na Modou Mbaye Garmi xaw fu may jaar. Euh, daa mujj nag mu jaawale mu jaawale mu bi ak sama téléphone ma na ko defee bu bisu El Hadj Malick jotee. noonu la ko defee ci kër bi ko màggal. ray ay nagam invité ñëpp di ah, màggal bisu ah, El euh, Hadj Malick bi. voilà Mass Ndiaye Mass itam itam man la fii ci télévision Futur Média mm. euh, moom tamit euh, kontaan na fa mu ne mm. euh, nee na bu yëgoon liggéey si tey donc Mass Ndiaye taalibe Cheikh fii la nekk ci <laughs> télé bi ñu ngi koy ndokkeel bu baax international bi Cheikh Seck sama goro Euh, Cheikh Seck footballeur. la ilaha illallah moom taalibi Cheikh moom taalibi Cheikh la. waaw waaw moom xam naa ni su ma su ma bëggee mu bàyyi maag moom rek dama ko Cheikh laa koy naxee. Cheikh loo bëgg jël ci moom jaar ci Alaaji Abdu wala nga jaar wala nga jaar ci sëñ Mansour wala nga jaar ci maam Maodo. wallaahi Cheikh Seck moom gafaam gi daal boo ci bëggee tàbbi foofu rek ngay jaar. <laughs> Cheikh ñu ngi ko ndokkeel ak Cheikh Seck ñu ngi koy ndokkeel. MDL mm. euh, MDL chef ñaa bu gendarmerie mm. euh, moom tamit ñu ngi koy ndokkeel bu baax Kumba Sey ak ñoom Fatou ñu ngi leen di ndokkeel Joodo euh, Mbay sama rakk la itam moom it taalibe Cheikh la mm. euh, moom it ñu ngi koy ndokkeel bu baax mm. euh, ajot Ndey Mari Cuun waaw Mari waaw bu Ndeye bu Ndeye la mu Ndeye Mari Thioune sëru Salam Diallo. Salam Diallo waaw moom ah, itam sama sama bàjjan la. moom it ku ko xam-xam ni Talibe Cheikh la. Talibe Cheikh la ak ndayam ju baax jooju mm. teel a dem. ñu ngi koy la déggen la déggen waaw. mu dee ñoon Kuba Joor. ba wallaay ba. <laughs> donc ñoom ñëpp daal ku lim juum <laughs> euh, soxna Penda Guissé madame Mbaye bu États-Unis ah euh, Baye Cheikh nag yaa ngi bëgg a tàbbi nag sama digganteeg papaan <laughs> le premier juillet. Ah, incha allah waaw ca États-Unis. incha allah ca Daouda Sarr. wallaay wallaay ca association euh, les les jeunes Tidiane. waaw ñoom ñoom Adama da baax. alaaj ah. pap le mais man kat li ma jaaxal mooy. le man dafa am ñaari xew. waaw premier ak Bamba Day bi. waaw te man dañoo confirmé ak man ba pare waaye dañ ma ne yéen demu leen da ngeen di toog xaar sëriñ Moutala mu sëñ Moutala kooku jaral na kooku jaral ñu kalaame ko ñu kalaame ko ak ak mu sëñ Moutala Mbacke kooku daal dëgg-dëgg directeur bu ci dox dana dana la booleeg sëñ Mame Mor mu sëñ Moutala macha allah waaw bàyyam bàyyam sëñ Moutala it moo tasaar ji ci Afrique Europe mu topp ca tànki bàyyam sëñ Moutala macha allah donc lii yëpp mënu cee ñàkk en tout cas ñu ngi ndokkeelaat ñëpp di gërëm Alaaji Ababacar Diallo Mamou Dadi moom it taalibe Cheikh la kontaan na fa mu ne xam naa ni livre bi ay sutu pay fall Fall sama nga koy réclamer il faut nga nga may ma ko ma jox ko ko euh, Alaaji Mara Dieng itam moom dafa bokk euh, ah, ci néegu Sidi Aj Malik dafa bokk ci ëtt bi ah, Alaaji Mara Dieng xam ndax jigéenam ba waaw ndax ndax way juram ya mm. donc moom fi mu ne euh, kontaan na Moussa Lo itam ca Thiès dégg naa euh, dégg naa moom it kontaan na mm. Maam Fa ak Tata Kinelo ñoom ñëpp kontaan nañu mm. en tout cas suñu xarit yëpp daal ñu ngi leen di ndokkeel tey ci guddi gi nga xamee ni QG hors série bu ñu jagleel Seydi Hadji Malick euh, mu bëggoon nag ñu ñëw tuuti ci ñaari ponk yoo xamante ni ñoo jeexal oustaz te duñ ci dem mm-hmm. diggante Seydi Hadji ak Serigne Touba mbokk oh, gi am ci diggante Cheikhul Khadim ak euh, Sidi Hadj Malick euh, buñ ca jógee nag jàdd ci euh, jaar ci ki nga xamee ni mooy Serigne Mansour si borom ma dikkal ma dem. Mhm. ma dikkam ma dem plutôt. waaw damaa daanu man tamit moo tax. waaw <laughs> tamit mu ngi mhm. Paris. moom it sama mag la taalibe Cheikh bu mag la ñu ngi ko ci ndokkeel bu baax. Mhm. ñu jàll ci loolu Oustaz. ngañ. ci mbokk gi. <laughs> Amadou Farimata. ak maam Mara. <laughs> fii dawlatin te warul wallaahi koo xamul alxaaji Abdul Aziz Maalik sang ba nee na kii wax ni Tuuba Tiwaawan ñaari dawla lañu fii dawlatin te warul wallaahi koo xamul baayu sax nu mu ne na ngeen ko wax yéen ñi xam na noppi loolu moo di ni fadlal ali moom ci loxom la newul sëndaw la jiitu na tey loo bañ ba ni du fi jóg ba xottiku yaa maluul yaa xëttu xol mamak ni tuubaak tiwaawat ñaseen jaamal ak canaba كذاك العين وجازاكم ترك ترلل Amadou Farimata Pape gis nga Amadou Farimata. Amadou Farimata. Mama Rabaké. Farimata. Mama Rabaké. Ibra Farimata. Mama Rabaké. lii de bu ngeen demee ca jag saaw di ngeen ko gis guy gu rëy alaa jàbdu bind ko fa teg ko fa ngir bëgg defar mbokk gi ñëpp xam ni lii nekk mooy lenn te moo war a nekk benn amadou fari mata jur mati mbàkke mu jur maam Usmaan mm. mu jur Seydi Alaaji mu jur alhaaji abdog alaaji abib dog Mansoor ak Sëriñ Babacar Si teno fari mata jur Balla Aysa mu jur maam Mor Anta Sali mu jur Xaadimal Mustafa Ibra Fari Mata jur Xari Mbàkke Xari Mbàkke jur ngañ ñang mu jur Safeetu ñang mu jur Alxaaji Abdul Aziz Si Malik Tuubaak bi ku internet bi di ko gis mu ni euh, Seydi Aji Malik ak Sëriñ Tuubaa dañoo bokk ñaari bokk dañoo bokk ci kaw bokk ci suuf. wax mbokk gi ci kaw. ab généalogique wax mbokk gi ci kaw bi ñu paree mu wax mbokk gi ci suuf Pape Cheikh. Uh-huh. wax ko ñaari mbokk yëpp. Mm. ni nag bëggatuma dégg ku ni tijaan bi wala nga ni mbir mm. dëgg la waay ñëpp ñoo bokk fu nu jum mm-hmm. muy Seydina Mohamed ak yàlla ca maam maaram ba tey bi mu toogee ba léegi si Sidi Muxtaar mi ngi koy wax ñu bëggatuma dégg ku ni taraxa bi mbaa nga ni taraxa bi ay ñu bàyyi ñëpp ñu bàyyi sëñ Ahmed Sarr dem mm. ah, tabaarkallaahu sëñ Gaye gis nga mbokk gaa ngi noonu mm-hmm. moo tax man la Cheikh Sadi Habib Malick maam borom Touba lañ seqoon keroog ba mu koy jox téere ba te ne ko lii ab kado la te nee na ko yëg naa ne yóbbalu kado bi ci dàq mooy téere yàlla alxuraan moo tax Haya Abdou Aziz bi mu demee seet sëñ Abdou Khadir moom it mu jox ko kado ab kaamil boobu góor sëñ góor yi Maxtaar Diop moo ma ko nettali bu Thiès hmm. nee na eh, eh, eh, Cheikh Abdou Lahad jël kaamil Cheikh Abdou Khadir jël kaamil la jox Alaaji Abdou Aziz Alaaji Abdou kontaan ne ko lii de doxoon na sama diggante ak sa baay ak sama baay ah, ne nag sa ne nag sëñ Abdou Khadre jox na ma loo xam ni sama defaru àdduna ak àllaaxira nga ci bokk góor gi maxtaar ñoom ne ko maam Abdou luy sa defaru àdduna mu ne ko kaamil alxuraan la ma jox te alxuraan nekk ah, waaye kenn mënut a dem ci jaaroo ci sëñ Mansour borom daara ji ki nga may laaj xaj Pape Cheikh déedéet wallaahi parce que nee nit ñaa koy laaj mm-hmm. borom daara ji mm-hmm. beneen affaire la. Serigne Mansour ma di 35 la toog di jàngale joo xam ne. añam ak reeram maanaam ndékkeem ak añam moom lay booleeg reer soo ko reer ndax toog di jàngale. borom daara yi. 35 ans. ci njóogu fa am. xam-xamam maanaam foo ko takk weesu na ko. masala bu ma sa ñëw sama maam nee na loo teg rek la sëñ Mansour daan wax. sama maam ne. ba bis yàlla def ma am fu ma ko gis ma jéemantu waay ci wayu arab. ni ta jëshamtu maw hënan li inchaai madhati wa laysa maai fi shaari gayru rakikati ne ajuulul mawaami kay axuza taraifan waxat daja ni nit yi duuna zafrin bu mu deti ba ca biir ma ne ko fa bil jiddi nil tub jaddakum laa bi jaddikum fa jaddun bilaa jiddin yu addi bi juddati mu yuux parce que moom Sëñ Mansour dafa bëggoon xam-xam ba nga xam ne boo ko bëggee daanee jaar ko ci jinaas am bis rek ma xaw a banque tuuti ñu ne ma sëñ Mansoor nga ñoom rek ma ni xaaral tey daal sama banque gi dinaa ko faj ma ñëw fekk ko ñoom rek mu toog ma dóor benn xasida ma ne ko ma ma ne ko hisabrun bi tiihili almi laylan taazara bi ajami xiilus nu sibaay taxayara ba ca biir mu gudd ma ne ko fa xaakumu sëriñ Mansoor doon na misaal borom ma dema saa maam ne saahi loo teg rafet dara te kat moo di mara bëgg dara samp daara yi borom daaru yi yor der bi sa luudu man dara laa ilaha <laughs> daan wax xaala cheikhu moom sëñ Mansour ci moom la wàññi ko xilaasu zahab fii seet xayril arab boo ko déggee sa xel dem ci borom daara ji te sëñ xamee lu ne la ci jàngale xë su ixlaas baatinu ixlaas mi ngi ci bopp xilaasu zahab mm-hmm. alamul jabarut alamul naasuut alamul laahut alamul haahut moom la allaaj maag def ci bayit bu njëkk bi def ko 40 46 xaraf tolloog baatu alwaliyu mm-hmm. awlu walilaay fil ardu huwa aadam ni xam hamdan yuwaafi bi ana amila naa wafarat tëjee ko ni alhamdulilah zil ijaaji tëjee ko ci xam hamdan yuwaafi bi ana amila naa wafarat moo tax li ko sëñ Babacar Sy wax ne wa kullu fannin sëñ Paap sëñ Babacar def ne ko bépp fànn lisaanul xaali lisaanul xaalu fànn ba xaala lakum yow alaaj maalik alqila asa talqa min taysiri ma asura alaaj maalik yónnee ci xaadima jaxate ka la ni ko na ko abal téere arurut bi mu taalifoon mu di ko seet ni ko doomu soxna du àbb téere day taalif téere alaaj maali aalu taalif ñaari aarut benn bi 41 bayit benn bi 200 bayit bu njëkk mu ni xëlile aysu tajri lil arudi aruduha sawaamidu laylin waaxidaatin tawaxuda te juubu ilaa niqali aqaabi bi fayaafiyan ya aqibu laa tahdi ilayhinna sarmada ba tey mu ni zinil qawla bil misaani waqta ilaakihi wal ifraata wa tafrita lam yardadul huda mu ni booy wax teg ko ci balaasu sharia mais booy way teg ko ci wasnu shiar ñu ne ko alaaj maalik foofu nga yam xaaji maalik saar sunu maam ki ma leen ndox ni mooy taawu taaw alaaj maalik mu koy jàngal ndax mu tëg koo dégg alaaj maalik jàng ko ñaar ci ko ko ni ko dafakasun yaa maalikinul usulu rana xajun furuhawal xalil ñu ne alaaj maalik nooy def ak miraas mu taalif ci miraas tuddee ko kaw kabul mu niir laylal faraidi lil mustanir daal di ci jàngale ba ca awlu li gën a jafe nga xam ne awlu daañ ko jël ay paas alaaj maalik jàngale ko ci ñaari bayit pap ni fala ailul waawu li ndax wi sabaatin wala samaaniyati taa li asharatin yebun ilaa yejin yehin wusey taawul kaddun ilaa zakkin taawul yaa xaliyu ñaari bayit fànn yëpp nag la sëriñ Xayma ak topp ilmul falak sëriñ Xayma ilmul nujum def na subuutu chehru ramadan bi télégraphe mu ngi ci diwaan bi koor nan lay saxe ba werante yi ci am alaaj maa bu ñu jàngoon xasidaam boobu dootu ñu werante ca biir xasi ba nag la naan lil intiqaali min kalaam min li kalaam lii wér na lii wérul déedéet sharia dafa am ay ay ay madhab ngiru Malick Seydi Hadji Malick maam borom Touba ñoom bàyyi na si ngiru imam Malick la ñu tënku. moo waral imam ngiru Chafi'i boo foonee jigéen sa njàpp du yàqu mais ngiru Malick boo foonee jigéen sa njàpp du yàqu. école yi bokkul. comme école yi bokkul nag booy wax nit ñi danga leen di wax ci benn ngir. Mm-hmm. ngir waaye xam daggan na lii daggan na lii daggan na su ko defee nit ki jaxasoo defe ni nit ñi dañoo jàngul ahan kay. Mm-hmm. nit ñi jàng nañ de mais dafa am loo xam ne ixtilaaful madahib la. Mm-hmm. te sëñ maa ngi neen lil intiqaali min kalaamin li kalaam aw mazhabin li mazhab chartun yuraam ilmun wa shuhratun bila taassubi pour nga jógee ci benn mazhab dem ci beneen lil intiqaal min ko wala waxu borom xam-xam ak beneen dafa am ay charte ilmun xam-xam moo ci njëkk wa shuhratun nga siiwee ngir mi bilaa bila taassubi te doo parparloo moo waral tey boo ne foo jigéen wàññiwul dara dem def ko boo jiite ci waa boo nekk ci Malick sa julli yàqu na kon dafa xam ne sa soxna la sa soxna bu alaaji maa ngi day firi alxuraan ba mu yàgg mu ni weeru koor boo ci fóonee sa soxla baaxul waaye nag budul sa soxna nag sa yaay maa ngi yuuxu ni ko ndax nit dana fóon ko dul soxna am ko tax ma leeral wax ji leer hmm. ndax nit dana fóon ko du soxnaam dégg naa Cheikh Abdou Khadre Cheikh Abdou Khadre bi ñu ko ne dafa am ah, benn jigéen bu am doom te amul jëkkër dafa ne loolu gëj na am ci jamono yonent Yàlla Isa neen sëñ Abdou Khadre dañ ko def am jigéen bu am doom te amul jëkkër mu ni loolu naa am ci jamono yonte yàlla Isa moom jàpp na ni nit ñëmu ko sax sëñ Abdou Khadre la ilaha sax xalaatuñ ko sax oh. moo doon noonu la def topp branche yëpp nga xam ne benn par benn ba ci gerte am na kër yoo xam duñ génnee asakay gerte c'est-à-dire xaymaa moo fekk ñu woo benn borom xam-xam ca Maroc ni ko xoolal gerte kenn waru ci génne asaka mu leen duñ ko génne alaaj maa yónnee ko gerte ni ko bala ngaa àtte ci dëkku jàmbur dangay xam la ngay àttewu lan la ca la alaaj maa ngi taalife ci diwaan bi dugal ci ne ne gerte kemb dañ koy génne parce que aussi zeyti borom fekk dafa ne boo lu am diwlin ci diwlin ci koy génne jàngale wu ci gerte lañ gerte lañ koy def moo tax Cheikh Saadu Abi si di xaadar ni alaaji Maalik madaarisu fil ilmi madaarisu fil ilmi xayru madaarisi ay école am ñoo gën ci école yi wa awraaduhu fi dikri maa misluhu l werd xoolal fukki benn yi Thierno Ahmad baaba Sall ca Coloñ Thierno Cissé al fiqhi Thierno Jamli ca Tébégout Thierno Ousmane Ndiaye Bababe Thierno Alhaji Demba Awa ca Medina Ndiaye be Thierno Makhtar Kebe Thierno Alhaji Baba Jong al Badawi Thierno Zeynul Abidina Xayrlaaw Alhaji Lamine Diogo Thierno Alpha Amadou ca Coloñ alhaaji Cheikh Thiam alhaaji Muxtaar Saaxo ñii ñoo bind yóbbu ko archive nationale muy fukki borom xam-xam yi rawoon jamono yu bind ni alhaaji Malick moo raw ci ci jamono. est-ce que seexalu ko seexalul kenn suukar. waxu ko nag pour pour pour déedéet Seydi Hadj Malick li mu gënoon a bañ mooy kuy kuy kuy kuy wut féewale ci ay këri diineem waaye boobu borom xam-xam yi ñoo nattu kër Seydi Hadj Malick parce que góor gi Maxtaar Saaxo alaaj Malick dafa yëndoonoo moom parce que ci moom la Thierno Saïdou Nourou nekkoon hmm. parce que magi Thierno Saïdou Nourou góor Amadou bu bu Thierno Mountaga dafa nekkoon ci moom mu di ko wër bay fekk ko ci góor googu mu koy jàngal alaaj Malick yëndoon moom mu ni kii de xam-xam bi mu yor xam-xamu nit te Thierno Seydou Nour Serigne Hay maa ko defar Thierno Seydou Nour martabaam bi gënoon na tuuti xoolal nga tooñ ko xamul foo dëkk mu jël li maqaama bi mu lay dumaa sànni ko ci jant bi fu la jant bi tiimee maqaama bi dal sa kaw nga faat bi mu dajeeg Serigne Hay maa la ko alaaj maa nanguloon ni ko nag bàyyi lool lépp nag bis na ko tey Hmm. Abdul Karim Baabali yeggoon na ci def karaama Abdul Karim Baabali yeggoon na ci def karaama seen xaaj Maalik di ko tere ba bis hmm. Alaaji Maalik jël dugub mu def ni Alaaji Maalik ko mu jël dugub jël suuf gas ko dugub ji sax ci saa si Alaaji Maalik ni ko lii ko amul cër te yàllaa koy fooye Abdul Karim yi ida maruntal karama kun murdil karima tanaalu ma zitta min azafari inna rida bi rida ya abdu fastami an naw al wasiyati fi israi muddakiri kon léppam sunna la woon loolu war na sunnata man lawlaahu ma barasa shamsun naari wa la badrun wa sa شمس النهار ولا بدر ولا هدى فرد على الابن شكر والبين ومولى والد بر يا استاذ شمس منذر دار النفوس دين الله تربية لك ابليس مبتسم متمن المكايم ustaasu sindiida mbokk yi mu ngoog lu lu neex nag lu doy mhm. Serigne Mansour moo daa wax naan ma dikkam ma dem mhm. euh, defe naa dikk nañu ba mu xaw a doy tuuti moo tax Baye seex waaw foofu nag leeral ci mbir dana baax uh-huh. Serigne Mansour borom daara ji mhm. dafa am bi noo nekk ci télévision rajo boo xam ne amaguñu télé te nu seetaay te nu seeti ko ni nga ànd ku naan maître Diop baax mi Tiwaawoon lañu ko fekk keroog sëñ Habib moo moonu dalal keroog mi ngi nu entri ci néegu biiram dafa ne Habib mu naa mun a ko wàccal ma ñaari walis keroog maa ngi metti Jóob ku ci ne am nga complet man mi nag dëgg-dëgg jox na ma aslëf ci xam nga da bëgg xaalis wallaay lool ba pare noonu bay gar mi ñaar yi doo ko ñàkk doo ñàkk xaalis doo ñàkk mbubb wallaay ñàkk bi nu ko waxee soxla bi wax li nu bëgg dana daal dëgg-dëgg àpp naa ko ñaari weer wallaay ci la ñu am télévision hmm. billaahi kii nag dëgg-dëgg lu mu wax rek lu mas a wax rek yàlla def na ko. wallaahi dëgg-dëgg téere téere yi moo leen wuuf. la ilaha xam nga jàng mën nga mën nga mën nga jàng téere yi te uufoo leen moom dafa jàng téere bu dee uuf biir yi. koy maamam yow waaw waaw kooku dëgg dëgg si rajo maa liggéey maam. ak ah, kuy baayam nag sëñ Babacar sëñ jur. waaye daal Seydi Jamil te bu Serigne Mansour te xam nga ni xam nga ni euh, ab lébu la te lébu dëgg day am xam-xam laa ilaa waa su seet ñay mbaaw giréen mi ci mbaaw lébu dëgg day am xam-xam bu tàbbee bu tàbbee bu doxee rek nga xam ne dëgg-dëgg kii di dox boo ko la gaañ wallaahi kooku Seydi Mansour bu baax macha allah macha allah mbokk yi defe naa euh, bugg noo jeexal sax mais euh, il faut nag ñu tëj bu ko defee ñun itam ñu dem waajal xëdd bi sëñ Ahmed Sarr ñu ngi lay gërëm bu baax amuñu sa fay amuñu sa fay amuñu sa fay tey Sénégal yëpp kontaan nañu euh, dëgg la sax ni ngeen di kontaan ni yéen ñii seetaan du guléet waaye la ma wax sànq rek yéen ñu ko jaral mm. moo tax borom xam-xam yi nga xam ne ñaare pour gis leen day jafe mm. euh, dañuy def tout rek di leen indi di leen boole ak téléspectateurs yi mm. xam naa ni ay kàddu yu mujj euh, dina diis ma laaj la ko waaye waxtaan wi tey boo ko tëj loo koy tëjee Sarr waaw ñu ngi koy tëjee rek di gërëm ñi ñuy seetaan ñëpp. Mhm. di eh, nuyu bu baax njabootu sëñ Mansour mi ñu tëjal. Mhm. ndax sëñ Mansour dama amoon ci moom benn cër boo xam ne eh, cëru exceptionnel la woon. Mhm. ndax ma bëggoon bëgg boo xam ne sax dafa jaaxaloon ñu bari. Eh, jël na terrain buy jar daanaka quatre-vingts million garaat bi jox ma ko ma def fa institut islamique mhm. moom borom daara ji mhm. euh, sëñ Habib doomam mu boole ma moom di suñu mhm. séddoo di suñu séddoo di suñu xarit di suñu soppe euh, ñu di ziar sa taawam sëriñ Cheikh ñoom sëñ Jamil sëñ Maam Malick macha allah sëñ Abdou euh, tabarakallahu ak soxna Farsi di suñu yaay sëñ bi moom mu boole woon moom yóbbu ba ci moom ni ko soxna Farsi dénk naa la Ahmed Euh, sëñ Mansour euh, euh, aw ma fayam. moo tax dañ koy ñaanal yàlla. yàlla yokk leeram fu mu tëdd. ñun ak ñi mu yarandoo woon ñoom Mansour Niang ñoom Hadji Malick Sow ca tabarkalla Tiwaawan. di diitam ñaanal xalifa bi sëñ Abdou Aziz yàlla yàgg ko sunu kanam. ak njaboot Cheikh Sadi Hadji Malick yëpp. ndax li ñu wax rek moom kenn la moom sëñ Abdou Aziz. Euh, mën naa ne sëñ Abdou dem na ba wax ñu ni baatu xalifa sax nee na bu ko déggee day am kersa parce que tàmmu waaw moom nee na service doxal service rek la tàmm mm-hmm, mm-hmm. euh, euh, di def lu raar bërki démb rek ndeysaan ñi ma àndal ñi ngi ndoogandoo ak moom mm-hmm. ñi ma àndal ni ma est-ce que xam nga mosumaa toog ak xalifa bëree rek moom ma ne ko sëñ Abdou nee na du lekk moom donc ndax yaatum ku ah, ñëw tey bu ñëpp ñëwoon tey yéenay bokk ndoon sa papa Maodo noonu la mel sëñ Maodo si macha allah ci xam-xam bu rëy nga xam ne nangoo ñu loolu sëñ papa suñ papa sëñ papa ma euh, sëñ Bay Mansour uh-huh. Uh-huh. di porte param yàlla na yàlla yàgg ko suñu kanam macha allah njaboot Cheikh Sadi Hadj Malick yëpp nag bu ñu leen tooyee ci fii ñoom la ñu tooyal fii nuyu itam nag njaboot ga ci Louga ga ñu bàyyi ko uh-huh, ak suñu njaboot gi fii ci Dakar ndax uh, papa Ahmed Ndiaye Sarr uh, suñu xalifa uh, macha allah ñu ngi jotal nuyoom ndax moom it am na njëgalam soog a ñëw sunu bàjjen soxna Xadi moom lañ dese woon moo doon sunu rak papa moo wàññiku ajuma bi passé ñu ñaan yàlla yokk leeram euh, soxna sunu soxna ca daara jëm soxna Ayda moom foofu ñu tudd ko ak soxna Rogi moo nekk fii ci Dakar <laughs> ndax toujours rek yéen say papa àndi ma nag nag del nuyu soxna yi nag waaye nag ñu ngi leen di nuyu ndax wax dëgg yàlla nag ñoom ñoo jàppale ci liggéey bi euh, ak itam nag di tëjee rek lu gàtt mm-hmm. mooy li papa an wax maanaam Sénégal a te internet yi lu ci nekk dañ koy réyal te waruñu ko réyal parce que euh, kër Sëriñ Hadj Malick maam euh, ku ne xam ne sëñ Sidi Maxtaar xalifa bi maa koy ziar ba mu toogee lu mu njëkk a wax rek mooy bu divergence am entre ñaari tarixa njabootu maam Khalifa Niass euh, Serigne Cheikh Tidiane Niass loolu lay joxe comme mission. Mm-hmm. moo tax jamono bu ne yaa ngi fekk njabootam ca Tiwaawan ñuy gën a si ah, eh, Serigne Abdoulaye wax na photo bi wax donc nag kon yooyu yëpp nag mm-hmm. seytaane euh, day def lu ndaw mu bëgg ko amplifier mm-hmm. pour jaxas ci ay këri diine te jaru ko beneen bi mooy waykat yi way ñu def tërëb ñu bàyyi di way di gaaruwaale yeneen tarixa yi day am ci eh, njabootu tijaani di am ci murid di am ci xaari di am ci ku ne mm-hmm. ku ne mën nga way mm-hmm. mais nag tàgg sa sëriñ bu mu tax nga xas keneen mm-hmm. conférencier tam ñu mel ni ñu ñii ñuy wax loo te yàlla nattuñu ci wax kenn ku ne itam booy wax sa wax nga mesurer ko rafetal ko parce que lu ne kenn ku nekk ak sa cëru yàlla waaye nag toog ci public bon euh, bëgg nii diw moom moo moo fi mën moo fi nàngam euh, euh, ci ci ci dal ak ci yiw jàpp naa ne loolu rafetul te loolu la muy indi mooy mën amul benn njëriñ parce que mm-hmm. li li mu way léegi alaaj ab doo ko way alaaj ab nee na boo nuyoonteeg nit ci jàkka ji ngeen gën jàkk nga jox ko sa loxo ni ko ban tarixa nga bokk alaaj ab nee na rocc sa loxo gaaw te xam ne kii seytaane la ah, kon li ñu war mooy Sénégal ñu amaat beneen gis-gis kan mm-hmm. yu bëree bëri seytaane moo koy def te amul njëriñ mm-hmm. ndax li maam Ablaye ñu seq Seydi Hadj Malick mm-hmm. euh, njabootam seq ko Seydi Hadj Malick xalifa bi seq ko suñu xalifa bi seq ko xalifa bi loolu nit ko dindi te ñoom góor yàlla yi jàngal nañ ñu yoon yëpp réglé nañu problème kon na ko bañ a jar euh, beneen bi itam nag di ñaan yàlla yàlla na yàlla yokku télé bi def fi xéewal euh, gërëm nag nag sëñ Papa Anne ndax wax dëgg yàlla sama xarit la sama genn wàll la man bëriwuma li may dem ci télévision

yenn saa yi nit sax laaj ma lu tax doo dem ci télé yi mhm. eh, man daal man leen Pape Hann daal xam naa ne mhm. moom mënuma koo gànt moo tax tey bi mu ma wooyee tey moo tax maa ngi jégalu borom xam-xam yi nag erreur yi moom bari na moom ah, ndax ndax dañ koo waajul waaj koo xam ne wax dëgg yàlla waroon nañ cee mën a joxe lu lu leer waaye nag ñu ngi gërëm ñëpp nag eh, di mhm. gërëm tam suñu rakk Hadji Malick suñu rakk eh, la bu baax xam ne tabarkalaw moom la ñu tuddee Alhaji Malick ci suñu kër donc kon kii turandoom la maa ngi ko ci ndokkeel bu baax a baax sànq sànq Alhaji Malick Diop bu Ghazali bi ngeen di wax Ablaye Ndiaye sànq sama xarit la la macha allah moom ku bëgg allah mm-hmm. jaraaf Youssou Ndoye su ko defee daal képp koo xam ne daal yaa ngi ñuy déglu ndax mbokkam mi Serigne Saaliw sëriñ sëriñ sëriñ Mansour moom moom woote na ba sonn tabaarkalla ah, Maguette Sow unité 10 macha allah waaw ñoom ñëpp a ngi ñoom ñëpp a ngi réagir tabaarkalla kon nag daal ñi ngi nuyu uh-huh. ku ñu tudd ku ñu tuddul ah, bi ñu ñëw ñu ànd ak nag suñu lépp ëpp muy Ablaye Gueye Fall mi uh-huh. nga xam ne macha allah rabbi fu ñu jëm ñooy ànd uh-huh. tabaarkalla mu gunge si ma ci plateau bi eh, man sax xawoon naa jaaxle man ko Ablaye li bett na te man mu ne ma ah, demal rek yàlla mën a defal sutura mu ne sa bopp moom lañ Euh, nuyu njabootam ndax waa kër sëñ Abdou yëpp ngi toog duñu mm. seetaan euh, tabarakallahu ñu ngi gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp njabootu ma sëñ mm-hmm. yàlla na yàlla defal ñu tawfiq Pape Cheikh yow yàlla yàggal la fi euh, nit ku baax nga parce que itam nit ci xelam ak ci moralam la nga ko mën a mm-hmm. te gis nañ ni toujours yaa ngi yaatal toujours yaa ngi temporé ah, toujours yaa ngi def loo xam ne ak yow la làmboo kon yàlla na yàlla fay mm-hmm. wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala ko fàtte parce que borom xam-xam la sànq nag sànq la sànq nag maa ngi maa ngi maa ngi dégg maa ngi dégg Pape Andi ko tooñ waaw ndax euh, waaye nag ni nga ko tege baax ndax dañ naan sëñ Babacar si mbaxane mi mm. daawa ko jéngal Pape koo gisee mu tege nii mbaxane ab trian la bu la abbee ah na bu ko tegee nii nag ab doxaankat la bu ñëwee ana xale yi nee ko tëdd na ah. nee na bu ko tegee nii ku bëgg àdduna la nee na foo ko fekk day bot loxo yi di walis ah. nee bu ko tegee nii nag nee am tëx grand place bu nekk la ñaan góor gi jugal tëri yaa ngi nelaw wasalaamaaleykum wa rahmatullahi macha <laughs> mu ngi gërëm ñëpp Euh, di di di di nuyu tamit suñu benn xarit ah, euh, boo xam ne suñu soppe la daf ñuy jox ay idées souvent euh, di apprécier lu baax mu wax lu lu lu xaw a kii dëngit mu jox ñu ay conseils mu ngi tudd Fatou Ki Fatou Kiné Ngom hmm. voilà Fatou Kiné Ngom ñu ngi koy nuyu bu baax di ko gërëm itam ci fidélité am ak ni mu soppee programme yu télévision Futur Média ah di nuyu tamit Serigne mbay saar bu RTS hmm. Serigne Mbaye Sarr tamit jot nañu yóbbanteem ñu ngi koy gërëm bu baax foofu ca RTS suñu yaay ju fa nekkoon yar ñu di Tata Yaawa moom tamit euh, ñu ngi koy ndokkeel bu baax euh, di ko di ko gërëm ak euh, cofeel gi mu am ci programme yu télévision Futur Média mais di nuyu tamit ay surtout Serigne Mansour bokk na ci Ndeye Aminta Seck Ndoya Fatima ak ñoom Papa Sa nag suñu yaay jooju di Adja Vassor en tout cas lébu yëpp kontaan nañu Alimatu Benhaj moom tamit taalibe Cheikh la mu ngi nekk Casablanca ñu ngi koy nuyu ñu ngi lay gërëm bu baax oustaz Pape Anne émission bi nag doyul waaye bis bi ñu koy euh, wanewaat incha allah dinañu ko annoncé téléspectateurs yi euh, bu ko defee ñu mën a dundaat euh, guddi gi nga xam ne ni guddi QG hors série la mhm. waaw hors série la Alaaji waxtaane kàngam yi nga xam ni noo fexe ba nu xam yàlla xam si Seydina Mouhamed mhm. tey nag ñu jëloon góor gu tedd gu mag googule Cheikh Seydil Hadji Malick mhm. nga xam ni damay wax toujours ni ku fi jóge ku fi jóge dem ba Tiwaawan gal la fa tiir yaa ko fa yóbbu mhm. waaye meew mu weex tàll la Seydil Hadji Malick jox taalibe yi mhm. Baye Alaaj Njaay loo dama ko damaa romb ma téye mbubb mi ne ko papa dénk ma mu ma doom ma ne ko labbayk mu ma ki jeexal bul ko tontu parce boo ko tontoo da nga koy delloo si mhm. mu ne ma doom ki nga raw bul ko tontu parce boo ko tontoo tolloog moom mu ma ki nga raw nag bul ko tontu parce boo ko tontoo mu dab la euh, euh, mu mm. ni ma ki nga maaseel jamono boo ko tontu ndax boo ko tontu daf lay romb mm. mu ni ma ñii bu leen wuyu mm-hmm. maa ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala euh, sunu cofeel ci góor gu tedd gi yal na ko yàlla gën a dolli ndax nëbb nañu boppam fexe na ba nu xam yàlla xam rasulullah yi mm-hmm. ñaanal réew mi di réewum Sénégal jàmm rek a fi xaj ñaanal ëttu këri diina ji sunu mag ñi yal na yàlla yokk seeni leer yàlla taas ñu ci seen barke walaaj pap di leen ndokkeel bu baax a baax a baax mm-hmm. ndax lii ngay def dafa metti lool lool lool lool lool dina ñëw jàkkaarloog yow ku safaanoog loolu li dina ñëw jàkkaarloog yow mm-hmm. waaye nga gérer lépp ci mbaax ak personnalité nu mm-hmm. ngi lay ñaanal borom bi subhanahu wa taala yàlla na yàlla doon la sàmm ci darajey Sidina Muhammad mais gërëm sëñ Ahmed Sarr mu baax mii mm-hmm. ci yiwam ci mbaaxam mais sama diggante ak moom moom sama lépp la euh, mais gërëm alaaji ngañ mbaay mii ak njabootu Maam Moussa ngañ moom fi lay liggéeyee moom futur média la bokk petit papa <laughs> moo la daan papa bi petit papa mbuub moo la daan léegi Abdoul Aziz Mbaye wala Diaw Góor daaw góor mbaay ba laaj ah. Mansour sangoone biram jigi di njabootu Mamoussa Ale ñaanal leen yal na yàlla yokku leen dëgëral gërëm waa plateau bépp alaaj Mamadou Mbaye nag xam nga sama digganteeg moom ah. moom sama xarit waaye sama soppe la waaw moom bi ma koy sopp dafa yàgg lool mais alaaj pap am na nu mbégte yàlla xam na ko ñëpp bég nanu ñu ngi lay ñaan ci daraja yi rasulullahi na yàlla defar sa mbiri amin amin oustaz defar ah. euh, ndax ñun euh, waxtaane wuñu sunuy maam seen ah. maam la nu waxtaane yàlla dogal nu gëm seen maam yaakaar ko àddina ak mm. alaxira mm. lépp lu nu wax bu jubee ci ñooma waaye bu dëngee bu dëngee bu dëngee rek ci ñoom la xam nga man maay surtout bi Sambou Yuga. Ah, ok Bilal ak Sambou Yuga soxna Bakary ak Makumba Cissé man. Euh, foo ma foo ma làmb sama wàllu wayjur bu góor dama dama bokk ak Cheikh Sil Hadji Malick mhm. sama wàllu wayjur bu jigéen dama bokk ak Cheikh Sil Hadji mhm. te it ma amoon sama maam bu ñu euh, maam ma xura nekk mu xaddamu Cheikh Sil Hadji Malick mhm. euh, alaaj Pape sama maam Jibel Ka maa ngi nuyu xalifa bi alaaj Ousmane Ka nekk mu xad mu xaddamu njabootu Cheikh Sil Hadji Malick yëpp kenn ku kenn ku ci nekk lijaasal ko waaye waaye askan wi ma bokk boo ko làmbee rek dama bokk ak Cheikhil Khadim bokk ak Euh, Cheikh Sil Hadji Malick ndax Serigne Bamba fa ma fa ma bokkee ak moom mooy maam sama maam Anta Sali ka da nga naan maam Mor Anta Sali Anta Sali mi ko jur mm. kooku kooku sama maama <laughs> ma bokk ak Cheikh El mm-hmm. waaye bokk ak Cheikh Sil Hadji Malick ci lépp Euh, ndax alaaj Malick tooroodo la man ma génn di tooroodo dëkk Pété sama dëkk maam ko fa santul aan doo nekk buur doo nekk imaam euh, ma bokk ci njabootu seex Sil Hadj Malick googu mm. maa ngi ñaan nag sama dund sama lépp ña gërëm sama bàyyi nag ndax bi may am ñeenti at juróom la may uuf di ma yóbbu ci buurdu kër Sidil Hadj Malick nampé man nampé fa ndax aw ma lu dul alaaj Malick ak njabootam mais nag la Cheikh El Hadj Abdou Aziz da baax wax ne sëriñ Hadj wax ne mboolem wullu yi naw naa ñëpp waaye ginnaaw ba nag jaayante naa Cheikh Tidiane. sëriñ bi wax na ko léegi koo jox loxo Alaaji ni mu laaj la foo bokk. ban tariixa roccil sa loxo xam ne seytaane dugg na munoo nekk murit laa Laayeen Xaadir cene ba cene ba fenn ngay bokk yàlla féetale la fenn waaye nanga fonk ñëpp sopp ñëpp. te al martabatu laa tusaamih pap nit mën naa toog wax tooñ wëlluyu wëlluyu wëlluyu ba baal la ci mbaaxam mais martabaam moo lay fàdd surtout suñu yëfi télé yi waaw martabaam moo lay fàdd al martabatu laa tusaamih nit mën naa bind bind ci yu wax ko lu ñaaw mbaa nga wax wëlluyu lu safaanu ah mbaa nga gaaruwaale wëlluyu wala yu ba ba la jéggalee martaba moo lay fàtt wala nga jékki-jékki kenn koo xam day jékki-jékki rek dee mbaa mu jékki-jékki yàlla na ci yàlla musal loolu la koy waral mooy tooñ wala yu ñu ngi ñaanal njabootu Alaaji Malick yëpp yal na yàlla gën leen fi bàyyi ñaanal soppe yi ndax mboolem tey ku njabootu Seydi Alaaji Malick tey bég na ki leen bégal mooy Ahmed Sarr mi am na am na am na euh, kilifa gu léegi nee na xanaa amuloo ay cassettes yu ñu mën a jënd bu amul it ndax doo ko def MDL chef ñaa ñu ngi koy nuyu bu baax nee na euh, bu fekkee am ngay cassette nga wax ko fu nga ko mën a jëndee bu fekkee amuloo ko nga def ko pour ñu mën cee barkeelu waaw loolu laaj nañ ma ko euh, na ay waxtaan yu am xanaa jox ko ci boo ñu ko joxee ci internet bu defee Ahmed Sarr rek Ahmed yu bare bare bari yoo xam ni ma nga foofu alaaj Pape mais am nañ mbégte ci yow jërëjëf yi mu ngoog El Hadj Man Garmi itam ñu ngi lay gërëm bu baax gale mm. xam naa ni tey euh, bu weesoo wàlliw yi euh, euh, sunu sang yi doon dañu juddu nag ci juddu yu rafet lool. Mm. dañu juddoo noo xamee ni daal. Mm. mën nañoo fanaan itam ci seeni judd. waaw jërëjëf Baye Cheikh xanaa di ndokkeel rek sunu mbokk mi. Mm-hmm. ci fi mu tàbbi te lépp tegu ci yoon. Mm-hmm. laalul yéppam ndax Njaay Saare Njaay Saare maamam. kade ba nekkoon ca ndar moo remplacé bu baxdaat bi mu wàccee ci kade gi. bato bi. moo moo jàng itam El Hadj Lamine Guèye. wax dëgg. Ndiaye Sarr maamam. njaay Sarr maamam su ma saana àttee kenn du ko toxal moom la njëkk a tamit ci sëg ci sëg ci ndar. moom dëgg dëgg moom moom moom lii mu def def ko doom wallaahi ñu ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam te sàmm ko. amul ku bégul. li nekk sunu téléphone bi yëpp. suñu ko dee wax buba mii moo naan tëj leen tëj leen télé. <laughs> garab bi ma dolli la ci. waaw bismillah Saar. Mm. xaadir la woon du woon tijaan. diggal li te moom la may doomam bu jigéen soxna Asou si. moo mm. jur Saliou Sarr ak Khady saar bi gaañu ak Abdou Karim Sarr sam baab. nga xam si Seydi Hadji Malick même affaire tarixa mu mm. sa bokk ci ko ci ci dundam. muy Ndiaye Sarr di xaadi di borom xam-xam. Mm-hmm. nekk xaadir ba pare alaay maa jël doomam bu jigéen may ko ko. mu jur ñooñu wax nii kooku nag moo menti Binta Sarr Maxa. Binta Sarr léegi nga dëgg moo ko meññ. Oh. dëgg-dëgg mu maxtaar jaw sama xarit sama soppi. wallaay doomu ndar bu mag bi. di wax ne nag waa Chicago kontaan nañu. lool yaa ngi waa a dem quand même ah. waaw waaw kooku nag buuba. waaw waa Washington Ahmed Sy. si Sëñ Habib. waaw tubarkalla buuba xam naa ne lii sa yaram sax dana daw. ah dawul de toute façon may na la billet may na la billet ah. may ko billet may na la billet liggéey bi il faut ñu bàyyi la. waaw te moom dañ ko bàyyeegul. <laughs> ah Pape Hann yaa ma àttee nii. jërëjëf jërëjëf Hann. maa ngi lay maa ngi maa ngi waxtaan ñu bu ba. <laughs> yàlla baax na yàlla baax di la ñaanal nag Baye Cheikh bu baax. amiin Mbaye amiin mbay di wax ne daal Sénégal yëpp bég na. jërëjëf Mbaye. Serigne Maodo Sy nag mënuñu tàbbi ba mu jeex. Mhm. te duñu ko ziar. wallaay mhm. ci lewet gi ci yiw gi ci baax gi ci tedd gi mhm. jikkoy Alaaji Abdu rek la yor kon si Malick ñu ngi la jox sa wàcc waaye di la ñaanal jàmm bu baax a baax yàlla guddal sa fant sàmm ndax moom suñu soppee su suñu xarita wallaahi lool mhm. te Alaaji Abdu daana toog ba mu yàgg mu yónnee ci maam Mari seen mu baax mi mi nga xam ne moo meññu ñu baax mi ñi lay ne daal dëgg-dëgg neel neen maam Mari na ma ñaanal te maam Mari seen moomu nag moo meññ moo meññ moo meññ ndey soxna mu meññ borom kër gii wallaay wallaay nga xam ne dëgg-dëgg ci baax rek la dox kon daal dëgg-dëgg yàlla mi am baax te mën a fay yàlla na yàlla nu bokk fay ñun ñëpp di sargal nag sunu nawle yu baax yi toog parce que macha allah couleur bés parce que parce que parce que euh, euh, turandoo buuba mi waaw dégg naa moo daan ñëwal Serigne Babacar waaw mooy Babacar Penda Yéeri moo Serigne Mansour moo ñu ko wax waaw ah, waaw loolu am moo Babacar Penda Yéeri ma nga jamono pire pa Boubacar Mbuub Mbuub ci boppam moo daan ñëwal moo daan Serigne Babacar à l'époque moom moom moom la ñu eh, moom la ñu fayee Boubacar mu lëj daan daan